Euh, tey nag nga ñëw fekk fi jëwrin yoo xam ne mooy sëñ Moustapha Dieng mii toog nga xam ne sëñ Mountakha Basir mii sëñ Touba tey moo ko woo ba mu ñëw mu yëkkati liggéey bi teg ko ci loxoom damay wax ne liggéey sëriñ Touba yi continuité la li fekk asadu an laa ilaaha illallah ngi jib ci jàkka yi rek liggéey sëñ Touba day am jamono ju nekk nag day am ñu ko yor ku ne xam na ne sëñ Cheikh liggéey na fi liggéey bu rafet ànd kook mbooleem taalibe yi ànd koog mbooleem kilifa yi liggéeyub sëriñ tubaab moo demee noonu jamono boo demee ba wàcc rek keneen day daal di roofu tey nag sëñ Moustapha Dieng mii moom la fi sëñ Mountakha teg mu ànd ko ak sëñ Abdou Khadir mi ñu mat sëkk nag ay jëwrin ndax bi ñu ñëwee rafetal bi nu njëkk def mooy bi ñu ñëwee dañoo xool ñi nga xam dañ fee nekkoon di liggéey mu ñëw tàllal ñëpp loxo wax ne moom ko dañ koo dénk liggéey waaye sensé wu fi dara li ko yitteel rek mooy bëgguk sëriñ bi di am saa su nekk kon loolu ñun ñëpp. war nañoo mën a ànd jàppale ko ci ndax bu fekkonte ne bi mu ñëwee dafa ñëw xool beneen système bu bees mu di ko def waaye bi mu ñëwee dane moom li ko yitteel mooy bëgguk sëriñ bi am bëgguk sëriñ bi nag lan doon jéem at yi jàll yëpp fukki at ak ñaar yi 2006 ba léegi bëgguk sëriñ bi ci dëkk bi rek mooy suñu mooy suñu dox mooy suñu yéene mooy li nga xam ne ci la ñuy yëngu kuréelu jaayante nag am fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew nii ñu ko too defee fii noonu la ko noonu lañ ko doon defee ba Daara Jolof dem ba Fuuta Añam euh, sëñ Modou mii defe naa ñoo àndoon dem nañ foo xam ne waa kër Sidi Hadji Malick lañ ñu jébbale fa un million huit cent yoo xam ne ñoom ñoo ko dajale jébbale ko ci ndox mi loolu nag damay wax ne yu mel noonu ab soññee la ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi te yàlla xam na ne am na ñoo xam ne ñi ngi dugal seen loxo ci liggéey bi naanuñu ci ndox mi sax kon ñi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi nga lawaay nañ xool ku mel ne soxna Astu Ceerno mi liggéey bii muy def ñun ñoo waroon a jóg di ko def di wàcc ci terrain bi di wax ak nit ñëw di ko rendre compte waaye tey mi ngi nii ànd ak ñun te man ñu ci fuuf kon nag ñun suñ xol sedd na ci wàll woowu ñoo ngi la ciy ñaan yàlla defal la ci lu kawe sa njort ba naal yi nga ko booleel sumbu sëñ Touba sotti lépp ci barki sëñ